dalin ak jàmm ci li ñu xëy gën ci Rewmi FM Rewmi na ci Sidy Lamine Niass gannaaw ak ko war a coow dëgg-dëgg am ci ci fan la ñu bu fekkee ne doom ja Cheikh Niass li mu jàpp mooy ne Sidy Lamine Niass ci sëgi jullit yi nekk ci Yoff lañ koy denc Ahmed Khalifa Niass nekk magi Sidy Lamine Niass li mu wax démb la waxaat tey jile mooy ne Sidy ci boppam kenn du denc fii ji Ndakaar waaye ca leew na Niasseen ga mu fekk baax fa lañ koy denc mu tax réew mi ko tijjee ne Sidy Lamine Niass ba fi ñu nii kenn denc gu ko ndax coow am ci njaboot ak Sidy Lamine observateur li njaboot ak Sidy Lamine nekki démb gannaaw ba coow ak réeru dëgg am am na ci ba fi tolli jamono jëli ñuy wëpp Sidi Lamine Niass ñu julee ko jébbal boromam yéene kaay bi di li ñëw ci delloo ñukkal gi xam ne gi réewu Sénégal gi yëpp delloo nañu ko ñukkal Sidi Lamine Niass mi nga xam ne ab serviteur la ñu ko bu ci conseil des ministres bi ñu amal delloo na njukkal dëgg-dëgg Sidi Lamine Niass mi mu jàppale tey jële wàllu presse li fi def daanaka kenn def ko fi te fi ñu toll nii moom ci boppam nekk na kàngam goo xam ne gi réew bu gi yëpp lay wéetal moom président Macky Sall tamit réunion donateur yi xam ñu ngi koy wa ji amal ca diwaan bu moom ci boppam mooy nekk invité G5 Sahel Rewmi Quotidien cantakon yi caabi fari gannaaw ca kaso bu Thiès am na beneen juróom-benneel cantakon biir kaso bi keneen ku doon sàkku booba tey ñu àtte ko di Assane moom Assane Diouf ci boppam yéen kabi di Vox Populi ne ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre bi la ñu koy atte Aïda Mbacké moom ba tey atteeguñu ko gannaaw bu ñu ko joxoñu baramu tuuma ne moom

ba jam ñaajo indi nañ ko léegi ba ñeenti téeméeri dërëm bu di aéroport international Blaise bu jas ba Touba léegi wàññi nañ ko ba ci juróom benn téeméer candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yu 2019 Rewmi Quotidien ginnaaw ba ko waa Benno Bokk Yaakaar investir ca Dakar Arena ni ki démb ca conseil constitutionnel la déposé candidature am jamono nga xam ne ji maître Abdoulaye Tine nekk njiital la tribune déggoo fi mu am dëgg-dëgg yéen kabi di ko ci Russie ne Aliou Cissé mi ci Pape Aliou Cissé ñoom ñëpp da leen a wet ñu tegee wet wàllu tàggat wax lu jëm ci kaddu yi nga xam na ko jëmale ko ci faatu magam gii di Sidi Lamine Niass moom Ahmed Khalifa Niass ne Sidi Lamine Niass ci boppam dañu ko wajjeku jaxase ko moom jaxase ko fam bi daanaka ba muy dugg ci yoo xam ne kenn xamu ko moom Ahmed Khalifa Niass ne Sidi Lamine Niass ci boppam dañu ko fàtte te ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fàtte ne ñu xam ne xel ne danañu ko diggaale moom ci kaw suufa ndax dana ko leeral